abonnez vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça se met ngeen di am ay xibaar. dal leen ak jàmm chaîne bi FTTV Sénégal qui demande bien Birame watch, des journalistes biir qui ne kii di Mimi Touré bañ recalé candidat biir conseil constitutionnel daa ànd ak kii di Bougane Gueye Dany ak kii Abdourahmane Diouf ne dinañ créer benn caravane daal di koy. dippee doggali Benno Bokk Yaakaar daal di daggaani baatu askan wi ngir ñu daal di jëlee fii kii di président Macky Sall waaye si li ni mel kii di Mame Birame wàcc daal dinay fàttalil kii di Mimi Touré que ne ba muy ànd ak kii di président Macky Sall ci élection présidentielle 2019 yañ génn ginnaaw bañ recalé ay candidat ci réew mi di Sénégal moom moomee di Mimi Touré moom moo génnoon daal di xamal Sénégalais yi que ne yooyee lu sabab ñu daal di leen di recalé biir conseil constitutionnel moom mooy que ne candidat yooye xaruñ seen tànkul tubéy daal di wàcc ci terrain bi daal di mëne ay parrainage yu baax mais li ni mel moom moo sababoon ñu daal di leen di recalé biir conseil constitutionnel mais kii di Mimi Touré moom moo génnoon di defendre waa conseil constitutionnel waaye tamit kookee di Mimi Touré ba muy ànd ak kii di président Macky Sall. moom moo doon défendre parrainage ci réew mii di Sénégal nekkoon kii di Mimi Touré bu retourné nekk candidat ñu daal di recalé candidature mbir conseil constitutionnel lu ko waroon moom mooy mu ne tekk ne tekkaaral ndax waru cee yëy waru cee yàbbi ndax musta ŋàññi waa conseil constitutionnel ba muy nekk ci pouvoir bi waaye ba mu wàccee ci pouvoir bi la commencé di leen ŋàññ ne musta ŋàññi liñ dippee parrainage ba muy nekk ak pouvoir bi waaye ba mu wàccee ci pouvoir bi la commencé di ŋàññi loolee tamit di parrainage kàddu yu ni mel la kii di Mame Birame Wathie yëkkati daal di koy jëmale ci kii di Mimi Touré ginnaaw ba muy kaas si liñ recalé candidature am biir conseil constitutionnel. abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su am ay xibaar.